ادخل علينا علينا علينا Diallo Diallo Escaf Diallo ah waaw waaw ah instant yii moom laa xalaat terrain rek waaw waaw terrain laa soxla jomoo ko ma waaw ah. instant pare na pour ñëpp pare na pour ñëpp xale la rek nek sama yoon wa pare na pour ñëpp ku ñëw baax na waaw ah. Tooma jàpp na si bu baax Tooma ama seen jàpp na si bu baax a baax maa ngi di ko gërëm maa ngi koy sant bu aja eh, ñun bambara bi rek la ñuy topp bambara bu xees bi sol ab biri fere eh bambara bi rek eh? ñun am waral la yow fii dara de Pikine billaay kontaan nañ suñu xool seet nañ eh, lii kese la amee loolu lu ñu waxoon def na ko yàlla na ko defal jàmm war na yàlla sa Wow, yéen a ko gisoon noonu. mu war a gis koñ Junior.